Ibrahima Fall nuyu naa la. waaw maa ngi lay fay euh, Soxna Moreau. voilà Ibrahima Fall nga nekk secrétaire général permanent national du SELS authentique euh, octobre nekk bés bu ñu jagleel euh, enseignants yi ak enseignantes yi en tant que jàngalekat loo si mën a waaw effectivement man lay Ibrahima Fall secrétaire permanent authentique di wax ne comme ni nga ko waxee ren ubbite ubbite école dafay ci vingt a mondiale de l'enseignant te ren thème mu nekk thème boo am solo tam boo xam ne ñi ngi fàttali ne dafa am déficit maanaam euh, en jàngalekat dafa manqué ci àddina bi donc mu nekk loo xam ne war nañ ci war a taxaw def ci taxaw seetlu ci àddina bi yëpp pour xool naka la ñu dundee ay ay ay yoo xamante dina mën a dina mën a apporter pour que jàng bi mën a am qualité ci àddina bi Euh, donc yéen bës bi naka ngeen ko fas yéene célébrer euh, fii si Sénégal. waaw ñun day euh, ci suñu organisation dañuy fas yéene incha allah dinañ daje suba toog ak ay. boroomi xam-xam euh, ñu waxtaan euh, naka la ñu naka la ñu euh, yan yan yan solution yi nga xam ne ñun wax xalaat nañ ko li nga xam à l'instar du moon ñu xalaat ci question yi ci thème bi vraiment buñ ci mënee a am tamit suñuy réponse su nga xam ne ay recommandation yuñ ci mën a am incha allah ñu jéem ko taataan bu bu jaree ñu jébbal ko kilifa yi ñu jébbaleen ko ñoom xool lañ lañ ci war a mën Mhm. waaw muy taseeg euh, justement ubbite école bi est-ce que euh, les conditions est-ce que conditions yi mi ngi fi pour ñu mën a euh, jàngi 5 octobre comme ni niñ koy waxee ubbi tey jàng tey. waaw euh, effectivement cinq octobre suba la école yi bi mais comme niñ koy waxee rek. Euh, danañ am école boo xam ne dina tijji ak euh, ñaaxamu ñu waxee ñaari vitesse dina am ñoo xam ne incha allah danañ départ suba. bu ñu ubbee rek danañ tàmbali danañ tàmbali jàngale bi te ci condition de réew mi mais dina am ñoo xamante ni euh, du ñu mën a tàmbali du ñu mën a tàmbali suba te loolu li koy waral yépp mooy euh, ñii am na ci dëkk yoo xam ne ak ay gox yoo xam ne dañu am dañu am déficit jàngalekat maanaam dafa am ay jàngalekat yi fa manqué lool boo demee ci côté noor bi yooyu am na fa dafa manqué lool Eh, nga jëm ci yenn yi aussi muy infrastructure yi mooy yi dañu nekk ci inondation yi yi nga xam réservé guñu leen yi nga xam désinfecté ñu am nañu problème mu table banc nga jël ci abri provisoire yi ñii nga xam ne defaruñ sax abri provisoire yi soo ko boolee di nga gis ne ne da am ñaar ñoo xam di nga xam ne ñii dinañ mën a ubbi tey def jàng tey ñii dinañ ubbi xaar dañu mën a defar yenn yi ñu mën a ñu mën a tàmbali loolu yëpp moom la gis ne moom mooy am dina am dina am ci ubbite bi eh, waaw waaw ouais, am déjà euh, ñu euh, commencé menacer yenn syndicalistes yi euh, ne au lieu sax de ubbi tey jàng tey ubbi tey gref tey naka gisee mbir moomu. waaw xam nga euh, man gis-gis bi ma ci am te defe naa ne suñu organisation la ci am mooy gis mooy ne euh, agenda organisation syndicale dafa am agenda yam góor gi am agenda yam donc ñun dañu am ay euh, ay ay ay militants am ay camarades yu ñu àndal am ay revendications yoo xam ne moom la ñuy taxaw leen xaar maintenant revendication moom la ñuy posé bu dee bu dee ñu ci war a def def nañ ko wax dëgg yàlla kenn du taxaw di wax ne ubbi grève tey bu dee li ñu ci war a def nag defuñ ko loolu mooy loolu mooy loolu mooy indi loolu mooy indi mel te loolu je pense que dañ ko waat di mën di dañ ko war di mën a éviter parce que am nañu comme ni ko ñenn ji waxee am nañu trois mois de vacances am nañ moment yoo xam ne nit ñi mën nañu waxtaan mën nañ lëlu mën nañ xool lu ñu mën a wàññee yenn yi euh, ba nga xam ne mën nañ ko wàññi ba nga xam ne bu ñu yegsee dina mën a yombal mais bu ñu bàyyee bàyyi ba bàyyi bàyyal bay école ah wax dëgg yàlla nit ñi seen euh, le pro la agenda syndical est la les les revendications la là suñ commune dañuy dañuy taxawal li ñu war a taxawal euh, dañ koy laaj maintenant lu mu laaj incha allah euh, organisation yi dañ koy def. Mmh. Euh, Ibrahima Fall kon euh, déjà yaa am na menace bi euh, yow lan ngay suggérer exactement en tant que syndicaliste pour année scolaire deux mille vingt trois deux mille vingt nekk année scolaire bu stable maanaam boo xam ne pratiquement du am grève wala dina néew daal. waaw euh, lenn moom dañ koy fàttali toujours euh, syndicaliste. parents d'élèves lañ donc benn donc ni ko parents d'élèves yi bëggee ñun noonu lañ ko mais bëggee maintenant euh, suñu amee ay revendications tey maa ngi koy wax sànq ci nasaraan bu ñu jëlee lu mel ni ay agent non fonctionnaire ñu wax ay décisionnaire nga téye leen ñu nekk situation bu garaaw garaw boo xamante ni ba ñu am ñoo xam ñu ngi dem retraite di am ay pension yoo xam ne ma maare des taali maare des musiba Eh, nga jël lii ñoo xam ne sont victimes ci ay décret ñu war a changer ñii ay ay arrêté ay date de signature ñu waxtaan ci ba tënk dara ba am bu nekk ci suuf bi war na mën def léegi ñu ne ñaari at décret baa boo waxee ñooy ñu ci suuf bi mais loolu problème la alors que mën nañu gis benn décret boo xamante ni wax fa dëgg yàlla décret bi waa rek bu def sax weer wala semaine décret bi génn naka la loolu def mën a génn te bii du mën a génn donc loolu dañ ci war a dañ ci war a loolu déjà rek problème la ci ñaari acteurs yoo xam ne ñu ngi waxtaan ñu seq dara donc yooyu suñ ko réglé maintenant yeneen ci des mooy euh, ñu teel a defar yenn yenn euh, carrière u enseignant bi nga jël acte de reclassement mu dañ koy seetee ci examen bi professionnel am balaa mu ciy jot boobu bu génnee balaa muy dem fonction publique bu ñuy demaatee fonction publique balaa muy irasi donc mu nekk benn boo xam ne Euh, calvaire la yàlla te yooyu yëpp ñu ngi nekk ci monde de numérisation ñu war ko mën a régler je pense que yooyu buñ ci taxawee dina mën a nekk jéego yooyu yëpp buñ ci taxawee boole ci nag waxtaan bu dëgër Euh, confiance bi tam dina mën a tax peut-être yooyu dina mën a wàññi yenn affaire mais loolu buñ ko buñ ko amulee mën da tax ne euh, organisation syndicale organisation syndicale dafa am agenda syndical am donc agenda syndical koy déroulé donc amul lien ak dara lu dul li ko li ko mandat bi jox mooy li ko revendication yi ñu war a topp mën a tax bi nga xam ne sur la satisfaction des intérêts des de ses euh, ñu ñu dellu si waat un rek si problème mu déficitu enseignant bi sànq sax yaa ngi ko doon junju ah, ñu gis ni enseignant yi dañu dañu manqué euh, pour yow cause yi lan la am na sax ñuy wax ni dafa am lien ak euh, phénomène émigration irrégulière ñu bëri jël nañ gaal yi dem est-ce que da nga dëggal aussi lan mooy cause déficitu enseignant yi. cause yi déficitu enseignant yi soxna si mais ñun mënuñoo mënuñoo taxaw affirmer ne naa ne eh, immigration bi moo ko waral parce que nit ñi dañoo dañoo dañoo dem eh, dañoo dem mais li nga xam ne seetlu gis nañ ko daal déjà ci nga xam ne mooy thème mondial bi nga xam ne UNESCO taxawal na ko commencé ci waxtaan gis nañu li ci génn lu bari mooy gis nañ ne métier bi dafa attractif muy benn impératif bu ñu war a dañu war a rendre le métier mën naa fexe ba métier bu attractivité ndaw yi nga xam ne dañuy ñëw ci jàng léegi bu taaw ñu fexe bëgg métier bi ñëw ñëw ñëw ci métier te loolu dafa war a lu ñu war a liggéey pour ñu mën ko def parce que nit ñi mën a bëgg nekk jàngale kat Euh, bëgg maintenant jàppale seen askan mais bëgg liggéey pour que ndaw yi mën a doon ay ndaw wala loolu déjà foog ñu liggéey te loolu li nga xam ne moo warloo euh, la àddina bi yëpp di waxtaanee suba le cinq octobre te loolu am ci àddina bi daal fii nii mooy li nga xam ne mooy métier bi dañu war a fexe nit ñi bëgg dañuy taamu ko ne xam ne lii de métier bu kii la boo xam boo ci duggee dañ ci mën a gis sa bopp c'est important loolu bu ñu ko mooy attractivité bi ñu def ko bu loolu tamit euh, ñuy def euh, fexe ba aussi infrastructure yi nga xam ne moom moo warloo métier bi aussi ñu def ko mu nekk dans de bonne dans de condition fa ngay jàngale na nga fay jàngal table yëpp yëpp yooyu yëpp vraiment condition yi condition yi mën a mën a mën a réy euh, carrière nit ki waru mën a toog na yaa ngi war a jàngale nekk nekk nekk nekk kër Ali Bass wala yaa ngi nekk fële ca Nioro nga bëgg a toog bëgg a bëgg a nekk foofu noonu di xalaat sa acte bi nga xam ne mu ngi nekk fonction publique avancé naa waroon naa avancé depuis deux deux mille vingt ba léegi avancé moo li ko waral mu nga tag dossier baa ngi taxaw sa xel du nekk loolu li ngay préoccupé rek mooy sa métier bi dama koy defaree la ca des ñi nga xam ne ñoo ko war a toppatoo ñu war ko toppatoo loolu suñ ko defee métier bi dina taat bi maintenant ku ci nekk gis ci sa bopp dina tax nit ñi mën a mais suñ ko deful Euh, day tax nit ñi di dem te beneen phénomène maa ngi koy da ngay dem tey léegi gis concours concours bu mel ne ENA tey par exemple nga xam ne mooy la l'élite de l'administration da ngay gis jàngalekat yu bari koo xam day nekk hiérarchie A ci njàng da pare dem di defi ji concours hiérarchie B foofu noonu lan moo tax muy nangu wàcc pour dem defi ji leneen parce que peut euh, gis na ne ah, li ñuy wax attraction bi nga xam ne euh, ressources yooyu gisu ba fa moo tax muy nangu defar donc je loolu mu nekk ci li nga xam lu ñu war a liggéey la pour que ñu delloowaat gëdd euh, jàngalekat bi jox ko daye bi nga xam ne moom la am ci réew mi parce que mënuñu wax réew mi sans ay jàngalekat parce que jàngalekat yi ñoom ñooy defar ndaw yi nga xam ne ñooy yor parce que ñi fi nekk nii tey buñ leen formé wutoon ca jamono yi ci ginnaaw ay bu buñ ci taxawuloon mu def dañu waroon def tey dañu am tey kilifa yi nga xam ne ñooy toog donc mu nekk ñoo xam ne dañu leen war a bàyyi xel parce que ñoom ñooy defar ñoom ñooy euh, que ñooy def li xam ne moo nekk donc daal gis nañu daal loolu suñu ci bàyyee xel comme ni ko adduna bi di xalaatee suba incha allah ak li nga xam ne moo fi am mën nañ jàpp hmm. mën nañ daal ne loolu suñ ci taxawee d'accord ñu gis ni Ibrahima Fall euh, enseignement de qualité bi dafa maanaam euh, euh, niveau élèves yi dafa wàcc ñu gis ni on a un problème d'enseignement de qualité qu'est-ce qu'il faut exactement pour ñu mën a relever encore la barre mën a am un enseignement de qualité au Sénégal niveau élèves yi mën a yokkaat waaw loolu day euh, euh, comme ni nga wax bëri na euh, bëri na ay njàngat yu yaatu yaatu je pense que ñu bëri xalaat nañ ci surtout yeeg mais li ñu jàpp d'abord mooy premier élément intrant de gâteau mooy recrutement bi déjà nañ ko niveau bac bu dee élémentaire la mooy yooyu def nañ ko donc maintenant li ci des mooy recrutement bi li ñu defee recrutement bu baax bu tegu ci yoon danañ am ay enseignants de de qualité su ñu paree bu jógee ci loolu ñu defal leen ay formation bu ci topp mooy formation maintenant bu ñu paree ci formation bi nga mettre leen maintenant li ci des nag mooy nga teg leen ci yenn conditions yi nga xam ne moom moo war ko ñu jàngale beneen bi mooy programme bi sax gis nañu ci dix-huit mesures yu conseil interministériel yu jël nee nañ benn bi nañu accélérer fina ñu teel a révision curriculaire yi maanaam curricula yi programme yi ñuy jox suñu ndaw yi dañ ko nekk programme yoo xam dañ ko war a ak li nga xam ne mooy suñu réew ak contexte jamono bi def ko mais dañ am programme yoo xam ne wax ko dëgg yàlla ñun ñëpp nañ ne boo xale bi sax day pare jàng du ci am benn ci am benn donc yooyu war nañ ko mën a xoolaat xoolaat suñu programme yi koy wax nag mu ngi bëgg a yàgg donc war nañ cee mën a taxaw taxaw seen def ñu xool li nga xam ne moom la ñu soxla ñu jox suñu ndaw yi suñu respecté procédure yooyu noonu yëpp ba pare rendre métier bi à je pense que mën nañu am euh, euh, mun nañu am un euh, enseignement de de qualité parce que man gëm naa ne am nañ ko parce que boo gisee sur les concours wala nga dem ci yenn école yi mag yi ci àdduna dem fay yi dañ fay def euh, li ñu fa war a def jaloore yu mag donc je pense que loolu euh, dañ ci war a war a góorgóorlu ci ci côté boobu noonu maintenant ñu bàyyi nag yenn recrutement yi parce que bon gis nañ ne am na recrutement spécial ñuy wax donc bañuñu ko parce que ay ndaw ñu war a jël la ñu war a kii mais nag dañ ci nañ nañ ko nañ ko nañ ci def ni ñuy defee rigueur bi ñu defoon ne buñ ko ci defee rek mën nañ am un recrutement de de qualité. Mhm. dernière question Ibrahima Fall euh, année scolaire bi di coïncider ak élection présidentielle de février deux mille vingt quatre euh, ñu bëri di am ay crainte par rapport ak euh, école yi yéen lan ngeen di suggérer état au Sénégal pour benn perturbation bañ a am au niveau des écoles. waaw. Euh, ñun de li ñu gis mooy euh, c'est c'est c'est dans l'ordre normal de des choses c'est dans l'ordre normal de démocratie démocratie bu nekk buy dox dafa am jamono boo xam ne dafa war a euh, toogaat de benn jamono bu nattaat boppam bu nattaate boobu nga ay kilifa yu bees école bi aussi dafa am agenda am am dafa am programme am temps am léppam donc war ñu ci yoon waruñoo mën a gis sax loolu war war a war mën a boole li ci nekk nag mooy bu dee organisation syndicale la ñuy wax Euh, comme li ma wax sànq rek ci njëlbeen mooy dañuy jàpp ne ne ñun dañu am agent agenda syndical la ñu maanaam dañu tënku ci suñu or suñ suñuy instance tënku ci li ñu liggéey tënku ci revendication ñu jébbal autorité bi nga xam ne moo fi def te bu ñu jàppee ne l' administration suñu continuité même bu ñuy dem campagne électorale buy dem administration dafay continuer donc ñun ñooñu la ñu la ñu nekkal maintenant ñooñu wuti nag ñooñu dañuy wuti Euh, ñoom ñoo xam ne ñu defee duñ wuti mais ñun nga xam ne ñoo fi toog ak ki nga xam ne moo fi toog moom la ñu am moom la ñuy jéem moom la ñuy waxtaanal moom la ñuy liggéeyal moom la ñuy pour que ñu mën a rek donc suñu euh, la ñu yor di koy déroulé euh, moment bu nekk la mu jamono boobu noonu ñu def ko maintenant dafa tombeel contexte daal jamono bi peut-être ko tombeel moment loolu moment boobu mu laaj loolu ñu taxawee ñu taxawee taxawaay boobu maintenant bu dee li ma wax sànq ne li nga xam ne moo warloo organisation yi def nañ ko je pense que duñu war a mën a toog war a mën a am ci yenn situation yoo xam ne dañ ciy wax wala dañ ciy dugg ñu doon donc ku nekk daal nga nga nga nga béy sa sa waat kii toppatoo mbirum carrière yeeg eh, école beeg outil de travail bi que la yi pour wuti ji pour wut naa daal eh, defal ñun jàmm quoi. voilà Ibrahima Fall Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci tontu bi nga tontu suñuy laaj. waaw maa ngi leen di gërëm di lay sant soxna Moro di ñaanal di ñaan jàmm di ñaanal réew ñaanal enseignants yeeg enseignantes yëpp une année scolaire apaisée vraiment enrichi que yàlla dimbale soof ci année bi suñu borom defal ñu ko Euh, di ñaan aussi ci réew mi jàmm yàlla defal ñu jàmm jàmm ci la lépp xam donc yàlla mon na ko yàlla yàlla defal. merci beaucoup Ibrahima Fall ñuy fàttali ni yow yaay secrétaire général permanent national bu SELS authentique en tout cas merci beaucoup si disponibilité bi.